internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube yi door saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonsoir, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi mars D'abord, l'actualité nationale. Ce 8 mars, le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable et le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies. Au Sénégal, le ministre de la Femme a annoncé la création d'un centre pour assistance aux femmes victimes de violences. Nous allons cette année-ci construire un centre de prise en charge des violences basées sur le genre qui va offrir un paquet de services positifs allant de la prise en charge juridique, de la prise en charge sociale et économique pour leur permettre de se réinsérer dans la société. Nous avons le budget qui s'élève à 500 millions de francs CFA pour construire ce centre, a déclaré Ndei Sali Diobdian. Dans le courant de l'année 2021, plus de 1500 divorces ont été prononcés par le tribunal civil de Dakar, sur les données fournies par le répertoire familial des affaires sociétales et familiales de l'administration des greffes rapportées par Wolf Quotidien, il y a eu 1037 divorces par contentieux et 554 séparations par consentement mutuel. Wolf indique par ailleurs que des centaines de décisions de garde des enfants issus de couples en naissance de divorce ou de délégation de puissance paternelle sont aussi prononcées dans ce même document. Avant de préciser que les principaux motifs de divorce évoqués sont l'incompatibilité d'humeur et le défaut d'entretien. Ousmane Sonko reste sous contrôle judiciaire. Le procureur s'est opposé à la demande de main-levée formulée par ses avocats. En effet, la défense d'Ousmane Sonko avait une nouvelle fois introduit une demande de main-levée en sa faveur, insistant sur le fait qu'il est devenu maire et qu'il est à présent impossible de se soustraire à la justice compte tenu de ses nouvelles fonctions. Mais d'après Libération, dans son réquisitoire transmis au juge du premier cabinet, le ministère public s'est opposé à la demande au motif que le leader de PASSEF n'était pas encore interrogé dans le fond. Le dernier mot revient toutefois au juge d'instruction. En Afrique, 18 personnes ont été tuées mardi par une milice dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dont 12 dans l'enceinte d'une paroisse catholique où elles s'étaient réfugiées, ont indiqué des sources locales. La milice Codeco est un groupe armé structuré autour d'une secte religieuse. Ils prétendent defendre la tribu Lendu, une des communautés de l'Ituri, face à l'armée et à la tribu Emma. Sur l'international, le président américain Joe Biden a décidé mardi d'un embargo sur le pétrole russe. Quelques jours plus tôt, Washington avait rouvert les négociations avec le Venezuela. Selon France 24, ce rapprochement entre deux pays en froid depuis 2019 s'explique par la volonté nord-américaine de trouver des alternatives à l'or russe. Reste à savoir si le président vénézuélien Nicolas Maduro cédera aux sirènes d'une levée des sanctions américaines. En sport, la FIFA avait savoir ce mardi que c'est l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngabo, qui a été désigné pour diriger le match devant opposer l'Égypte au Sénégal le 25 mars 2022 au Caire dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2022. L'homme au sifflet est habitué au grand rendez Il